def programme bi ñu lañu bëgga pour nga ñu ñaan ndimbal daal ndimbal ba boo xam ne pour élève ñu ne lii moo lii lañu lii moo nekk suñu njëriñ ma man maa ngi luwaas foofu laa de foraatu ci yoxos bi fay suma doom bi suma fos doom bi sax feyoon naa ko ba ba ma càng ma dugal ko training center muy de carpinterie soo ma bugga daal pour may dajale ni xëy na su baree ma mun a am laan pour samp fa suma banque bu loolu mooy suma gis-gis dégg dégg naa nga ne ngay dajale yaakaar naa ne danga gis njëriñ ci jaayam yoxos bi moo tax nga foog ne mun nga cee dajale ba sampa ci kër waaw est que gis nga ci njëriñ boobu maa ngi ciy gis njëriñ tuuti tuuti waaw kon loo am pour wax sa morom mi jigéen ñi toog defuñ dara ah man maa ngi wax suma moroom yi tam ñu góorgóorlu daal ñu takka suñu ndiga bi ndax ñu mën a dem si kanam Gambia tam ñu gën a dem kanam waaw borom dëkk bi tam yàlla dimbale ko mu gën mu gestu jigéen ñi waaw mu jàppale ñu mu gestu jigéen ñi ci ban boor pook ma faana bu nekk daal ci xaalis mu dimbale ñu ci xaalis ndax ñu leb ñu mun a jëfandikoo because man li taw sandal si laa fi leboon man bariwut suñu yeneen morom yi sax jotu ñoo am léegi la ñu amoon dafa tuuti waaw ñun ñi njëkkaa ñëw ñu ñoo am taw sandala taw sandala si moom laa indi nii Fatou Jammeh eh, eh, gis naa yaa ngi compté xaalis xaalis bi nga compté nii jëlee ko ci kondaane bi pour lan la. xaalis bi moom bi ñuy commencé si Fadia xam kontaan naa torop ndete suñu liggéeye tuuti ñaata at maa ngi liggéey waaye dara su ma ko amee rek ma lekk ko yëpp waaye yàlla def ñu am Fadia mu dimbale ñu waaye lu may def nii danka danka nii pour suma doom yi depuis ma commencé li aw ko may dumbalee suma domi wa yalla def ma duga ci bi ma ngi travail pour ma fay suma domi wa ci si nawet yi jotee nii jël xaliss bi ñolé bi ni ma dem fay ma dem def business légui si bis lifin bi jeexee nawet ñu ñëw di ko fay danka danka wa yow lanay sa liggéey dégg na ya ngi né Eh, fi nga amee xaalis waaye ba tey waxuloo ma lan mooy sa liggéey. Ah, damay dem géej waaye si suñu tëjee géej nii may dem di jaay këriñ waaw waaw. Eh, yow liggéey géej gi noo ko gisee. liggéey géej bi liggéey bee géej bi moom ah sant na yàlla baax na trop te moom a dimbale su bari si suma doom yi waaw suma soxla yëpp foofu laa ko def suma moromu jigéen ñi toog dam leen ah. ku nekk mu jog mu tray ndar su nekk ni jamono bi ni nekk ni neewut nga jog nga tray sa boppam da nga mëna am tuti ngay dumbalé sa ah, si tam sa doom tam mu dumbalé la si waaw. Ah, ah, ma ngi tudd Néné Sambu te ka abu ko ba wa li de ñun box yi ni dal arrangé nañu torop parce que yaga nañ di liggéey yu hosté amuñu won li so buñ démé tam ba gis ne dal Eh, lii baax na ñu commencé ko boo indee sa xaalis dañu fi labaloon thousand dalasi nga dem góor góor lu nga ñëw fay ñu delloowaat ñu joxaat ñu thousand dalasi bi bu ñu nawet bi jotee pour ñu jël ko business parce que duñ dee liggéey nawet bi waaw nawet bi moom lu ñu daan liggéey comme yoxos bi su tëjaan dañ daan toog ba yoxos ubbi soo léegi dem nañ bi nga xam ne tam suñu boti ubbeeku na su nawet bi jotee di nga seet looy jaay nga mun a liggéey soo suñu ñëwee fii ñu lebal ñu xaalis boobu la jël ñu dem def leneen comme nga jënd njaay nga jaayaat lu balaa nawet bi di jeex man mii eeli béy laa day jaay su ma fi jëlee xaalis bi dama dee dem botuwaar jënd eeli béy koos ko dem jaay ko marché noonu lay téye bay xos ubbi waaw léegi man itam ñëw nañ ba fii nii ñu jënd lii soo demee ba nga xam ne nawet bi jot na ñu ñëw ñu lebal leen waaye ci biir nawet noor bi comme nii suñ commencé su dee jox nañ la thousand dalasi am nga loo fi denc daal lu mel ni thousand dalasi dinañ la dañ laa jox thousand su fekkee ne tam denc nga fi lu ëpp thousand loo bëgg dañ la ko dee jox dafa des daa pour yow li nga denc fii léegi man ñëwoon naa fi ñu lebal ma thousand laa fi dencoon soo ñu jox ma thousand dalasi léegi man itam depuis mu fi génne ba léegi ñëwatuma soo daal ñu ngi gërëm lii bu baax a baax pour ñëpp tam ñu eew di denca waaw parce que denca baax na trop man dama dee seetee sama boppa man suma yaay liggéey na yoxos beeg dee bàyyiwu fi dara njabootam gis naa ne tey lii suma yàlla doon jël tey suma doom yi nu mu bon a bon dinañ ne nee ne saamu dee suma yaay liggéey woon na yoxos lii la fi bàyyi waaw soo ñu ngi gërëm ñëpp daal léegi na benn tey ñu ngi soxla tam ndimbal bi gën a yokku lii parce que ñun itam suñu place amuñu gaal amuñu gaal amuñu gaal daal boo xam ne si yox suubee di nga ko mën a jël man su man saka ku ni man sax waaw waaye ñun suñu tendaa bi tendaay dem gaal daal soxla nañ ko fii suñu liggéey génn naka ndimbal bi waaw kon yéen tey soo ngeen ne da ngeen soxla ndimbal mhm. naka la leen nit di mun a amee pour pour ñun pour nit ki mënuñoo am moom daal dafa des rek si kooku moom loo ñu soxla rek waxtu boo ñu ooyee rek dinañ la uyu si ne ñu dee lii laa bëgg lii laa bëgg ñun moom amuñu jafe-jafe waaw loo ñu oo rek dinañ ñëw. dafa mel ni am ngeen association. waaw waaw ñun kay ñun ñu ngi fi dégg waxtu bu nekk daal suñu téléphone yaa ngi fi soo leen ooyee dinañ ñu ñëw ko ku ñu mun di soxla daal waxtu boo ñu soxla rek ñun ñu ngi fi parce que compagnie bi moom dëgër na dëgër boo xam ne daal jëm na kanam torop waaw bëgg nañ dimbal daal ngeen ngeen ñoo taxawal bu baax a baax waaw jamono léegi daal eh, gaay ñu ne 609 la waaw ci biir kër gi daal góor géeg jigéen bi yëpp a em ne jigéen yi jóg soo fekkeende amuloo métier booy liggéey soo jógee xew suba dem eh, lu mel ni latre kunda fi ñuy jaayee yi sew mun ngaa jënd soble jënd kaani jënd yooyu yóbbu ci beneen marché nga saam nga jaay nu mu bon a bon sooy ñibbi infirde nga denca ndala dalasi loolu bu yàggee dina la yóbbu susu boo xam ne ëllëg di nga mën a jëriñ sa boppa ba tey ci ñaax jigéen ñi gis naa ne bi ma fi dugga see yéen ñëpp a ngi bokk ay kondaane te soo ko seetloo yàqa bi ci dëkk bi ci jigéen ñi la ëppee yow loo am pour aide jigéen ñi yàqa mi ci yàq bi ah yàq bi de moom daanaka adduna bi moo ko lajce léegi ci mbiri jigéen parce que jigéen toll na fu waxtu foo xam ne fu mu taxaw ci biir moromam xajaan rek lay def ci xajaan boobu noonu foog nga génnee tam nu mu bon a bon ku mel ni man suñu ma fi woyaloon ci biir sabar bi aw dara way daa fi génnee lépp sax dugal ko fa kon yan nañuy sabar yi bu taxawee yan nañuy bàyyiwante xel sooy génnee même boo génnee fifty dara si nga wéccu ko five five suñu war a woyalee nga dem jansa ba 25 nga génn 50 dollars bi jeexee nga xam ne na xaaral ma wuti suñu ma woyalee sama laaxu waaye ku mel ni nee na sama dugub. waaw ma dox la ci loolu fooguloo ne mm-hmm. war nañoo wàññi maye gi ci sabar gi mm-hmm. solu gi dangaa gis ku toog boppa bi ci suuf lim soow ci yaramam bi mhm. su ko dugaloon feneen wala mu wàññi ci tuuti dugal ci kondaane bi fooguloo ne wecci wecceeku dina wecci wecceeku dina am bu baax a baax boobu kay moom nañu wàññi bon ma del ci jigéen ñi bon nañu góor góor lu ñuy wàññi waaw waaye boobu ndax moom foog ñu train ko rek waaw <laughs> <laughs> ko ci bi bi fu ñu li ne sabar fu mu bu rek amul dara waaw ci sa géew bi nga def dara nañu yàlla may ñun tam ñu li ñu ci orchestre ñu suñu ak gi kër gi Hi, I'm Karen Kent from the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island, and we support the USAID Banafa project, which is supporting the Tri Oyster Women's Association. Okay, what inspired you to support TRI? Um, well, the USAID Banafa project is supporting the government of the Gambia, specifically Department of Fisheries, for sustainable fisheries management. Um, and the Tri Association early on became apparent as one of the you know key actors, especially uh, regarding the shellfish fishery, and especially representing the women who are involved in that fishery and uh, you know, women who are struggling for their own survival and for their own livelihoods. And so it was a natural um, organization for the project to support. So, so far, how do you see the project? Well, we're very impressed with um, the organization of TRI. They've grown incredibly since they began in 2007 the USAID Banafa project has been working with them since 2009, and we have seen them evolve from an organization representing one community of oyster harvesters to now 15 communities, 500 members, and very active participation of their members, and also the organization itself.